Iliman Ndouré sa baay yaa doon siré sa maam doon ko ci jom ji Youssou Ndour le roi du mbala Youssou Ndour joyeux anniversaire képp ku bëgg Youssou Ndour tey la anniversaire bu la neexee dangay def si vidéo wala sax nga def sa audio daal di koy souhaiter joyeux anniversaire na ci yow ci numéro bii ngay gis muy affiché nga envoyé ko boo ko envoyé dinañ ko diffuser ci Dakar nag Youssou Ndour joyeux anniversaire gawlo bee loo